الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم mbokk yi fii ngeen janoog doj wii mooy doju Safa wi nga xam ne fii la maam Haajara ak doomam suñ maam Ismaayil alayhim assalaam nekkoon diggante doj wi ak marwatu ba yàlla fekkee leen fi xéwal gi leen fi fekkee muy maa u zamzama yonentu bu hegsi waan fii fa daan jàng aaye ji ma jàng léegi fii ñu taxaw nii ak yéen la yonentu bi daan taxaw janoog kaaba gi kaaba gi bu ngeen xoolee moo nekk noonu ci seen kanam ngeen mën koo gis fi yonent bi sallallahu ay wa sallam taxawaan waaw travaux yi moo leen koy yiir waaye mi ngi nii jegeel nañ ko kaaba gaa ngi fii la yonentu daan taxaw nag jàng laaye jooju daal di wax allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lah lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli cheyin qadir laa ilaha illa allah waxdahu anjaza wacdahu wa nasara abdahu wa hazama al ahzaaba waxdah ñaan defaat ko ba muy ñetti yoon mu tàmbali nag béppeeku safa jëm marwa ni nga xamee ne noonu la suñu maam haajara bippeekoo woon safa jëm marwa waaye ñu xam ne nag du looloo tax loolu fàttali la waaye li tax yàlla def ko mu nekk shair shaira min sha'airil hajji kooku jaamu yàlla la jaamu yàlla nag dana am illa dana am sabab waaye duñ ko illaal wala ñu sababalee ko num ñu neexee rek lii lu historique la lu amoon la waaye nag li tax ñun ñuy wër ak a dox diggante safa ak marwa dafa bokk ci jaamu yàlla yi nga xam ne jaam bi fa koy def rekk ngir diggante mook boromam dafa am ci jaamu yàlla yi yoo xam ne njëriñ li dafa feeñ lu mel ni asaka dimbalante gi feeñ na lu mel ni waaw koor nga xam li miskin yi di feeñ na ci sarax ak yu mel noonu waaye lu mel ni sànni jamra duyut ne seytaane nañuy jam déedéet seytaane moom bu fa nee ñun ko lu mel ni dox safa ak mara duwul ne ndey xaajara la ñuy toppandoo yonantu la ñuy toppandoo fii ngeen gis nag ñu jëm mooy marwa laayit yu green yi ngeen gis dañoo sunnaal ku fi yegg si ngay cal walla ngay cukki-cukki mbaa nga daw danañu fàttali tamit ni maam Hajara doon dawee diggante Safa Marwa joge Safa jëm Marwa joge Marwa jëmaat Safa ba mu mel ni gis ngeen ba muy jógee at Safa jëm Marwa rek mbokk yi ngeen gis ñu ngi nii di naan zam ci la zam-zam bi ballee fii ndax malaaka me ko ballal wala tànk Ismaayila yi la sama borom a ko balal riwaaya ji bëri nañ waaye liñ xam rek mooy yàlla daal wane na fa kéemaan balal leen sam-sam boobu ba léegi nag ay junney xat sam-sam mosta ñiis te yonentu sallallahu alayhi wasallam nee na sam-sam lima shuriba loo ko naanee rek yàlla defal la ca loola kon nag barke barab bi barke zam-zam barke Makka barke Madina barke Kaaba gi barke Mizabu Rahmati barke Multazam barke Buntu Kaaba gi barke Hijru Ismail barke Hatim barke Rukunul Yamani barke Rukunul Sharqi barke Rukunul Garbi Rukunul Iraqi Rukunul Shami bu neexee barke waaw lépp loo xam ne nii war na Kaaba gi barke biir geeg biti gi biir Kaaba gi Kaaba gi biir jàkka ji biti jàkka ji biir Makka Arafat Minan Musdalifa Madinatul Munawara jàkka yonantu ba barab bam tëdd ak ñëm fa tëddal saxaabaam yëpp baqiya ak ñëm fa tëdd ñëpp ak ñooñ yonantu bi yëpp sallallahu alayhi barke malaayka barke Jibril barke Israfil barke Azrail barke Mikail barke way jege yi rawatina yonent yi barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallama barke yonent yàlla Ibrahim alayhi salaatu wa salaam barke yonent yàlla Moussa yonent yàlla Isa yonent yàlla Nuux barke mboolem yonent yi yëpp alayhimu salaatu wa salaam barke Cheikh Seydi Ahmed Tidiane barke barab yi yàlla sellale yëpp barke jamono yim sellale yëpp barke turam yi barke meloom yi barke jëmmam ji lépp loo xam ne mi ngi ci seen xol ngeen yéene ko bëgg ko ci mbaax yal leen ko yàlla defal defal ñu ko lépp loo xam ne aajo la yal na ko yàlla faj lépp loo xam ne jàngoro la yal na ko yàlla saafara lépp loo xam ne yitteel la yal na ko yàlla sotteel lépp loo xam ne jaamu yàlla la yal na ko yàlla nangu bor yal ko yàlla fay feebar yal ko yàlla dindi lépp lu ngeen mébél rek yal na leen ko yàlla may lépp lu ngeen ragal yàlla bu leen gis yàlla dimbal jullit yi ci Palestine te Syria te Yemen ca Sénégal ca Amérique ca Australia ca Europe Somalia waaw fii ci Asia ak bépp goxu ci goxu yàlla yi rek yàlla na fa yàlla dimbale lislaam dimbale fa ñooñ lislaam alak fa nooni lislaam alak fa nooni yàlla yi yal nañu yàlla may yàlla yal nañu yàlla may yàlla yal nañu yàlla may yàlla lamp bële ngeen di gis nag mbokk yi di yéeg mooy marwatu boo fa yeggee it def lañ defoon ca safa ba muy juróom-ñaari yoon ni ko suñ borom jàngale yonent bi mu leeralal ñu ko sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama and yàlla defal dégg ak topp képp koo xam ne mos nga fee ñëw ci yéen ñii seetaan yàlla nga fi ñëwaat képp koo xam ne mosoo fee ñëw yàlla nga fi ñëw te fi ñëw tamit ci jamono ji ñu nekk nekk giñ fi nekk yàlla bu mu nekk seen mujjug yoon yàlla na yàlla def lépp luñ ko ñaan mu nangul ñu ko bépp xaajo mu fajal ñu ko musal ñu ci lépp loo xam ne luy lor la ak luñ ragal ak luñ bëggul yëgati ñu ca kaw a kaw ci àdduna ak ci àllaaxira may ñu fan wu gudd wérgu yaram texe àdduna ak àllaaxira may ñu tuub gu dëggu listiqaamatu gu dëggu ragal yàlla gu dëggu yaakaar yàlla gu dëggu sant yàlla gu dëggu muñ gu wakiilu gu dëggu gërëm yàlla gu dëggu bëgg yàlla gu dëggu ngëm ak lislaam ak lixsaan gu dëggu yàlla may ñu sidqu may ñu tawakkulu may ñu xashetu may ñu tumaninatu may ñu muraqabatu may ñu mushahadatu may ñu kamalul maarifati defaral ñu suñu zahir defaral ñu suñu baatin fii la ñuy taxaw ñaan ni ko yonent bi defee woon allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allahu waxdahu la sharika lah lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli cheyin qadir لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ñaan suñ soxla rabbana atina fi dunia xasanatan wa fi laaxirati xasanatan wa qina azaaba naari def ko ba muy ñetti yoon ñu waaw ñu demati safa nii la ko yonent bi defee woon sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama seen mbokk Mouhamed Sakho asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu